libération yéen kaay dama xoolal li ñu naral maître Moussa Diop rek gannaaw plainte bu Dakar dem dikk ubbi nañu ab information judiciaire jëmale ko ci maître Moussa Diop moom candidat bu yeewi askan wi ca mairie bu Podor ña ngi koy tuumaal juróom fukki million ak juróom-ñeent yu tegus lëf yoo xam ne nee ñu dañ ko koo jébbal ca Dakar dem dikk te wartu woon libération yéen kaay ne ma kenn du neex ba gën a neex nag ñaar ñi nga xam ne jàpp nañ leen diggante Medina Gunaas ak Zac Mbao kenn ki moom yéen kaay bi ne ma ab sëriñ la ñaari at a ngi nii mu yor ab xale bu góor bu am fukki at ak juróom-ñaar xale ba di ko sàkku xale ba ban ko laajee dafa ne ba ma fa njëkkee ñëw mu fexe ba ma sàkku ko la génn ci man la jël am lum ca def fu mu ma woo ma wuy ko sëriñ ba ni déet jinne yi nekk ci moom laay dindi moo tax ma doon fexe mu sàkku ma yéene kaay bi ne ma ca zag mbaaw maçon bi juróom benni xale la jël yu am diggante juróom-ñeent jàpp fukki at ak ñaar dugal leen ca chantier ya ne da leen di liggéeyloo ndekete ma nga jàpp xale ya di leen sàkku amul góor amul jigéen libération ne ñaari waay yoo xam ne musiba dëgg la ñu ci société bu Sénégal la ñu teg loxo diggante Medina Gounass bon intéressons-nous à libération ce matin qui titre viol pédophilie acte contre nature et charlatanisme deux monstres deux monstres arrêtés à Medina Gounas et Zagmao. usant de ses pouvoirs mystiques le tarif praticien Salif Bari poussait depuis deux ans un garçon de 17 ans à le sodomiser aïe waay